asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wabarakatuh gina bu bi ñu sant yàlla julli ci yonent sallallahu alayhi wasallam sante suñu wasila cheikhul khadim di ñaan sëñ Muntaxa suñu borom jagg fi te wér ay cëram di ñaan sëñ ibrahim Diop mi nga may khalifa suñu dongo suñu borom may ko wër ak katan mu àggale naali ci alwi ak naali si dongay te ñun ñepp mu fekk ko sëriñ bi njabootu soxna Binte yëpp teew nañ fi man na ni digal li Euh, cant gi muy jëriñ si Abdourahmane mi nga xam ne mooy xalifa bi sëñ Paate ndax lépp maam mooy kilifa gi di ci te ki nga xam ne mooy soxna yi mi nga xam ne moo fi soxna Binta mën naa ne bu ko tuddee dana soxna yëpp di ci tout cité soxna Binta moom ci turandoo yi ak soxna Binta Mbaye Mbaye As ñu ànd koog ñun xam ne ñoo bokk lépp ki nga xam ne tam moo fi eh, kilifa gi ci góor ñi di sëñ Mourtala Ama ñu wax tam ci turam ak njaboot gi yëpp. ndax man naa ne sax gàttal moo gën ndax toogaay day métti caw te ñi la soxla bari na ñu lay xamal ne li nga def nii jëfu baatin la ndax wax nga ko léegi soo tàmbalee soxna bind ñu ne kii de boppam rek waaye da nga ko mujjee loolu ñuy bég ci lool man naa ne ka nga njëkk a tudde sax man naa bu fa yemoon sax lépp baax ndax njaboot gu koo ci tuddee kenn rek ñëpp gis nañ seen bopp ndax loolu mooy axlu dar manko dar manko mooy manko nekk benn dar yonte bi dar seewul xadim loolu rek ci lañ nekk li nga xam ne li nga xam ne yëkkati nañ ko teg sa loxo muy fanweeri junni lu ñu xeeb la lool ndax suñu man lépp ñun ñoo def magal yépp yëpp waaye lii dañuy dawal suñu yéen rek te yaakaar naa xam nga yéen yi xam nga pas-pas bi li ñuy def mooy di la ñaanal wér gudd fan ak wér te buñ koy ñaanee ci daraje sëñ Paate suñ boom dal na ko defal di sant tam sëñ sëñ Fall Amar mii nga xam ne mooy coordinateur bi mbooloom yëpp ñu ngi ci këram depuis ba ñëwee ba léegi mu taxaw ak coonam kon ñu ngi koy sant di gërëm ñu ànd ak moom ñëw fii di sant sëñ Modou mi nga xam ne moo ne bi la taw a ba lay danaka ci mom la nek muy seigne Modou Binta kon man na na dal lepp baxna na sant nañu gërëm nañu ñep suñu xol sedd na bu baax a baax waaw dañuy gàttal rek ndax fa tey ñu la soxla ban na trop ta jotaay bi yàgg yi ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم rajim الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيرن بي ميغي لين di nuyu بو باخ di لين سانت bu باخ di rafet lu bu baax a baax a baax seen jataay di leen ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala jataay bii ngeen fi jataayoo ak dikk gi ngeen dikk ak coono yi ngeen ci daj lépp suñu borom fulal leen ko defal leen xéewal yoo xam dana kawe seen yort ci zahir ak ci baatin eh, di leen xamal nag lii sëriñ bi nee da leen di xamal ne jéemul da ngeen cee bokk te kenn ëppalewu leen ci ndax sëñ bayti la ñuy màggalal te yéen ñi ñëpp set sëñ bayti ndongo joor ngeen mu leen di xamal ne lii dafay wane ni seenub cër da ngeen ko war a jël si di len xamal ni itam kenn ëppalewu leen fi di len xamal ni itam magal gi senu magal la di len xamal ni itam taxaway bi ngeen ci taxaw yëg ko lepp ci tàmbali ba ba ci jeexital bi li ci am solo dal moy xam ngeen ni soxna Binta mok serigne àll yok serigne Ibnu ñoo bok ndey ak bay di njabotuk serigne beyt Ndongo jor taxawee ngeen ko doxe ngeen ko yo ngeen ko li ngeen am itam def ngeen ko ci seeni xalaat ak seen am am lepp def ngeen ko ci serigne bi na xolam sedd na bu baax yalla suñu borom fay leen defal len tawfiq ci zahir ak ci batin ci daraja khadim rasul sallam naka non itam serigne bi mi ngi fatali ni mbok yi fi ñew ñep gis na len soxna Kala me ñew na and ak mbolem ña nga xam ñom la bokal ñep ak njabot gi ñep ki ñi bok ak ñom ci walu euh, gor gorak ñep ñom ñep tew nañ kenn ku ci nekk itam dala ci war def nga ko bi yëg na lepp kenn ku ci nekk itam neena ba ci serigne ibrahim kenn ku ci nekk taxawayam serigne bi yëg na lepp xamal leen ni itam maanaam kenn ku ci nekk la nga ca def dafa mel ni maanaam sëñ bayti nga ko defal xolam sedd na bu baax a baax yal na yàlla fay ci daraja Xaadim Rasul bu ko defee sëñ bi nee na ngeen tàllal loxo yi mu ñaanal leen